mukarraman bi qirat taahaati wa sadadi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk yi niy seetaante te di déglu ci sunu site bi ñuy wax sunu actu point com ñu del si yéen ci naafile yi ni amal ci weeru koor wi naafile yi nag ñu ngi koy jëlee ci téere sëriñ son yi bu mbàkk bi ni wax furatul xay ni tey ñu nekk ci guddig ñaar fukkeel ak juróom benn guddig ñaar fukkeel ak juróom benn danañ ci julli fukki rakka rakka bu nekk ñu jàng ci fatiha ak alxaari atu benn yoon xulqu wallaahu juróomi yoon ñu baamtul leen ko ñu toll ci guddig ñaar fukkeel ak juróom benn guddig ñaar ak juróom benn ñu julli ci fukki rakka rakka bu nekk ñu jàng ci fatiha alxaari atu benn yoon xulqu wallaahu juróomi yoon mbokk yi ñu sant leen gërëm leen yàlla yàlla nangul leen te nangul يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bila adadi laa zilta dayfan kariman zaa'iran abadan mukarraman bi qiraat taahaati wa sadadi